asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Pekes ginnaaw bi nu leen nuyoo ñu ngi nii nag ci cosmétique Serigne Bassirou Niang ka nekk ca biir di kan Bassirou Dia dëkk Ndéeg Dia muy wajal korité 2021 bi wa 2021 bi muy kori korité bu mucc ayib Manan kolona ko manan namu mu nan ma namuma dara man basiru Dia lepp lu sama client di soxla lepp lu ko yiteel ci sama marchandise dama ko koy andil di gennat ak yeen ci benen façon bu bes tak ci korité 2021 bi Manan ko waw Bas yow mi yandi nga sa boutique bi machallah mu nan ma waw parce que dama beug sama ay client contane basiru dal mu ngi ni mani dawle ak gaawa gaaw ca Basiru cosmétique waaw bëgg na ngeen kontaan yéen ay client ba tax na mu ni événement 2021 bi ci korité bi mënta yomb faaw day metti lool ndax da leen di indil bagage bu bees tàq ma ni loolu ngeen di seen ci fond d'écran bi moo di numéro Basiru ku ko bëgg a jot foo mën a nekk. Eh, asalaamaaleykum fekk sa ngay riir de fekk sa ngay wàcc de lii mbaa jàmm la bàcc jenn e frère cosmétique. waa kër borom daaru jenn ma waaw yow bàcc jenn yaa ngi nan mu ni ma maa ngi nii di waaj korité 2021 bi man tamit ma naan ko waaw ci yan facette mu ni ma waaw ay marchandises yi amul fenn laay indi ma naan ko jenn e frère ndànk rek méttiwul mu naan sama ay vitre sama ay diwukaay lépp loo xam ni jigéen daf koy soxla dama lay woo fii en même temps dama am sama magasin boo xam ni yemuma ci détail rek damay jaay en gros naan ko waaw ay jenn e frère wàññil defal ndànk mu naan ma waaw bëgg samay client kontaan ma ni ko ak mu naan naan ma waaw ku dugg boo génnee daal di bég lool jenn e daara ngi noonu ma naan leen dem leen gaaw a gaaw ku bëgg détail mbaa nga bëgg en gros ngay jaayiwaat demal nga wuy ji bàtti jenn e frère waa kër borom daaru jenn ma cosmétique waa kër boroom daaru jenn ngay am nii manaan la yow mi ko soxla wooteel ci numéro boobu ngay séenti fond d'écran bi bàcc jenn et mu ngi noonu kon donc ñëw leen gaaw fii ñu jëmati fan la bitugu Baay Faal bi Baay Faal bi gëm ca dëggal kooku kan la bitu xéewal buti xéewal ku fa nekk mbuub ja et mbuub ja et nekk fii nga xam ni moo di Pékère moom it mu ni maa ngi waajal de maa ngi pere korité bi 2021 bi pere bu amul fenn ma ni ko ci nan mu ni ma indi naa sama ay vitre sama ay diwukaay sama ay bijouterie yoo xam ni lépp loo xam ne jigéen daf koy soxla mbaa góor ku mu mën a doon daw sil kaaw ma jaay ko ci njëg gu yomb kooku mooy kan boutique xéewal boutique xéewal nag dafa jeexali wax ma ni foo d'écran bi ngay seen numéro foofu ma ni bu fa nekkul di nga fa fekk soxnaam kooku mooy mbuub ja nekk fii ci Pekes yàgg lool ci bi tax na muy woo ay kiliyaanam naan leen maa ngi leen di pereer lu am solo ay diwukaay ay robb xale ay rob bi mag ay jàllaabi yu am da solo ci korité bi ba tax na nag mënaan leen foo écran bi ngay seen numéro am noonu kooku mooy mbuub ja vitre yaa ngi noonu dàll yaa ngi nii lépp looy soxla rek dawal gaaw ci 2021 bi mu ni korité bi mënul yombu ndax dafa bëgg ay kiliyaanam kontaan ndax bëggul kenn dugg génn di mer mu ni yéen rek ma fi tax a nekk jàmm rek laa bëgg ci yéen ak ngeen kontaan. Jom jadi berilon Nyangin de berijamla Nyang balo jilin soy Kusantu nyang fabal soy Ya komo Ya komo Way wilu muire Ya iborom nyang Lai lai ay réew ca xamadi ah sama doom baay tëdd ci mbedd nga koy dumaak ak di ko gàtti ay silib lii lu mu doon yow réewoo bu ma ngeen ñëwaay yow waaye yow booy ngaay yëpp laay xëlëb ma di tort man dul tax gone yi laa xamul sama dàll yi moom deesuma ci xasaat xaaral rek ma saase ko def yëfi mag neex ña xëlëm ca ngaay rap rek rap rap ah waa jox ma ndox nag yow itam waaye loolu li sama koor koy jaay da maandu ah, may ma ah jox ma ndox maa ngi sowe ah, daam damaa ji ah, muy wax Moustapha Correction hmm. ne ci rajo Ngaay bii moo ma invité ndogu depuis démb depuis démb ma ne ci yi di wër fu ma dem ñu ni ma xamuma ah nag du woor ne ci mbedd yi di dox nag di taxawaalu ah dama yàq sama koor kat. déedéet may ma rek yow. yow maandu rek xaw ma ma xam naa la ah, de. xam naa la de. da tëj sa kiwil. ma tëj kon day noppi. sama lu ma waayoog yow ah xam waay yow yow lu tax nga soof nit bu la baax koy baax. waaw fi mu ne sama ndox dama ci sël nit bu la baax nit bu la baax danga koy bat seen kër laa dem nga ni ma ŋaññi arsala ma mel ni ab bersi almaa naan wala doo fi ndogoo ŋañ nga di nga ma ŋaññi ŋaññi ah sama dàll yooyu nag dama lay war ne am naay mm. waaw lu sayoon yow bu ma yow bu ma doon day fii sayoon niwut point point man dama pare ci yow ndax yow ku siis nga boy. siis booy xoolal wax ni sax laaj ngay <laughs> xëlëm gone yi lay